question bi nga xam ne moom la dem conférence bi posé woon muy ndax jalo boobu ci diggante l'islam ak yeneen diine yi jàppandi na walla jàppandiwul war nañ ci jële tontu lu leer bala ñuy jeexal conférence bi liñ ci dolli rek mooy gën leeral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon dunde ak ñoom ni mu leen doon wooye ci diine te lépp mu sukkandiku ko ci biir alquranul karim ndax dialogue boobu lu ñu war a séq ak ñoom alquran daf ñu ko wax ne ñooñu moom comme dañoo am foo xam ne fa la ñu taxaw te mooy seenub yonent moom gëmuñu ko yéen su ngeen dee dialogue ak ñoom li muy tekki moo yéen leen di fekk parce que ñaar ñu dox taxawee ci aw yoon ku nekk na sa moroom doxal lu daje waaye kenn ka rek mooy dox ka ca des moom taxaw fa taxaw te naan la doxal ñu daje li muy tekki mooy yow yaay dox ba jeexal taw yoon fekk ko fi nga xam ne fi la taxaw moom lanu lañu alquran wax ne walan tarda anka al yahudu wala nasara atta tattabia millatahum duñu d'accord ak yow mukk dialogue bi loo dialogue dialogue ba ne juboo nañ ci nangam ñu ne jàll sil ci leneen jàll sil ci leneen ba nga topp seen diine complètement loolu kon moom lañu borom bi tabaraka wa ci ñoom ne ñu yaa ayuha alladina amanu in tutiu alladina kafaru yaruddukum ala aqabikum fa tanqalibu xafirin yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla su ngeen toppee koo xam ne dafa wuute dafa gëmul yàlla soo ko toppee ci dara lu tuuti tuuti tuuti nee na dañ lay puus di la delloo ba nga nekkaat yéefar su ko defee nga daal di waxaat ñu ne wadda kasirun min ahlil kitab an yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir nee na ñu bari ci waa ahlul kitaab sopp nañu de génn leen ci ngëm yàlla delloo leen ci kéefar te nag nee na hasadan min indi anfusihim nee na kañaan goo xam ne dañ leen ko lalal ëmbal leen ko xam ne li ngeen nekk moo jub xam ne li ngeen nekk moo mën a sowee doomu aadama ñu iñaane leen loolu moo tax mu ne min baadi ma tabayyana lahumul xaq gannaaw bu mu leen leere na li ngeen nekk mooy dëgg ñu ambal leen nag bëgg leen a delloo ci kéefar gi nga xam ne ci ngeen nekkoon su ko defee ñu mën leen a yilif borom bi tabaraka wa taala kon leeral nañu suñu diggante ak ñoom wax na ne itam ñoom seen gànnaay ñu ko teg benn yoon ci pour di xeex pour del génn ñu ci diine jooju nga xam ne ci lañu nekk nee na wala yasaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istataau wa man yartadid minkum an diinihi fa yamut wa huwa kaafir fa ulaika xabitat amaluhum fi dunia wal axira wa ulaika humul xaasirun nee na ñooñu duñu dañ duñu sëpp seen gànnaay benn yoon xeex bi nag mën naa wute mën naa doon xëy na dooratu xeexu jaasi mais léegi xeexu xam-xam la xeexu alal la léegi waaye nee na xeex boobu na ngeen gëm ne duñu ko bàyyi benn yoon hatta yaruddukum an dinikum foofu la xeex bay jeexe ci du caag yéen juboo ci ay principe du caag yéen xaritoo waaye fa muy jeexe rek mooy génne leen ci seen diine complètement borom bi nag wëlbatiku ne wa man yartadid minkum an diinihi koo ci xam ne bëgg ngaa déggoog ñoom ba tax nga bàyyi sa principe bi diine ba fekki leen ca la ñu nekk nee na yow tey jëf lépp tëtiku na te yow mal xiyam na ngay bokk ci ñi nga xam ne dañoo perte te itam jéem a déggoo ak ñoom ndax boo te mu jaral leeral comme bi fi pape bi bëgg a ñëw jëloon nañu ay nit yoo xam ne dañ leen ci doon waxloo ñoo xam ne nit ñi jàpp nañ leen borom xam-xam ñuy indi ay aaya di indi ay xadis di jéem a lëndëmal ba ci nit ñi loolu jullit bi nga xam ne moom diineem daf koy déglu ci ay nit rek du ko jàng kooku war na ko cay jox dég-dég boo xam ne bu leer la déggoon na ñuy jël aayab laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddiini wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin aaya boobu li ci gaa yi gënoon a wiisi ci la bokk ñu ne yàlla daal terewu leen koo xam ne xeexu leen ci seen diine ngeen di defanteeg moom lu baax tey maandu seen diggante mais aaya bi sart bi mu joxe lam yuqaatilukum fi ddiin lam yuqaatilukum fi ddiin fekkoon def la rek xeexul la ci économique wala xeexul la ci culture mais xeexul la ci diine la wax koo xam ne xeexul la ci diine su ko defee nag ñu seet ñooñu ba xam ñi ngi ñuy xeex ci diine wala xeex ñu ci diine wala biir visite boobu kooku doon def fi tabbiwul ci xeex ñu ci diine wala ndax ci la tabbi lan moom bu gën a tax a jóg mooy gën a tasaare diine ji nga xam ne moom ca lay askanoo ci biir réew mi te biir réew mi ku fi bëgg a tasaare jeneen diine li muy tekki mooy ci kaw jullit ñi nga ko bëgg a tasaare ay bëgg ñu bàyyi seen diine ñëw ci sa diine jooju parce que kenn ku nekkul ci diine l'islam moom newu fi waaw gannaaw bu génnee moom ñi fi am ba pare ñi ci des ñëpp ci l'islam la ñu nekk su fekkee comme dafa bëgg gën a yokk diineem nag ñëw ci suñ réew mi nag fi la koy yokkee li muy tekki mooy kon ci kaw jullit ñi la ko yokk kon li muy tekki mooy mi ngi xeex jullit ñi ci diine te yàlla na innama yanhaakum allahu an alladina qaataluukum fi ddin wa axrajukum min diyaarikum wa zaaharu ala ixraajikum an tawallawhum wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum zalimun yàlla tere na leen koo xam ne daf leen di xeex ci diine bu sañoon lu ngeen di nekk ci coono day gën a yokk nee na kooku yàlla tere na leen wala sax muy jàppale ku leen di xeex wa zahar wa ala ixraajikum mu jàppale ku leen di xeex kooku yàlla nee na tere na ngeen di méngoo ak moom di xaritoo ak moom di jàppalante ak moom mu ne ku ko ci def fa ulaika humu zalimun ñooñe mooy ñi nga xam ne ñoo tooñ seen bopp ëllëg dellu ñu waxaat ci suratul maida ñu yaa ayuha alladina amanu muy adresse bu leer boo xam ne ku gëm yàlla ku fu ko yàlla wax ci biir alquran war ngaa wuyu damay wax toujours ne jullit ñi war nañu bàyyi xel yaa ayyuhal ladina amanu yi ci biir alquran yépp adresse directement boo xam ne yàlla daf la ko adressé ndég gëm nga yàlla mu ne laa tattaqisu lyahuda wannasaara baaduhum awliyaau baadin ndax kat wa man yatawallahum minhum minkum fa innahu minhum waaw bu leen jàpp koo xam ne yahud la walla nasran la di ko def xarit di ko def a àndandoo di ko def koo xam ne da ngeen di déggoo ak moom ndax nee na ku méngoog moom ci loolu fekk ko ca la mu nekk bu xewlee nga ne da nga cay dem boo xewlee war na caa mën a ñëw affaire diine ji daal ngeen jàppe ko benn nee na ku ko def léegi yow ñoom yaa leen fekki mais ñoom fekk wuñ la yow nekkatoo ci diine léegi waaw loolu kon moo ci taxawaayu jullit bi nga xam ne moom la ci war a yor bu baax borom bi tabaraka wa wax ko ba tey ne ñi nga xam ne dañuy dem ci ñoom te nee na teraanga lañ fay wuti nee na ñooñu ay naafiq moom la ne bassir al munafiqina allatina yattaqisuuna al kafirina awliyaa min duni al muminin communiqué nafiq yi nga xam ne dañuy jël yéefar yi di leen def ay xarit bàyyi julit luñ koy wuti mu ne ayabtaquuna indahum al izza fa inna al izzata lillahi jamia wa qad nusira alaykum fi lkitabi an isa samitum ayati llahi yukfaru biha wa yustahsau biha fala taqudu maahum hatta yaqudu fi hadisi lxayr innakum idan misluhum te inna allaha jaamiul munafiqina wal kafirina fi jahannama jamia mu ne yëgalal naafiq yi nga xam ne dañuy jël yéefar di ko def xarit dañuy jël yéefar di ko def àndandoo mu ne luñ tay wuti teraanga te loolu mooy li am ku fa doon dem ku nekk teraanga fa doon nga doon wuti ayabtaquuna indahum al izzata mu ne fa inna al izzata a jamia ñu gëmuñu ne fa inna al izzata lillahi jamia teraanga ku ko bëgg ci yàlla nga koy wuti waaw te nee na yàlla nee na moo la tere soo toogee fu ñuy weddee aayab yàlla nga war faa jóge te pap bi li mu takk day weddi aayab yàlla kurwa boobu mu takk foo ne ci jàkki rek weddi na alquran lu mu wax wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu moom mu takk la kurwa bu la wax ne isa dañ koo salab waaw nga foo ne dajje ci kanamam rek yaa ngi weddi alquran te yàlla daf la woon fu ñuy weddee alquran waroo faa toog an isa samiatum ayatillahi yukfaru biha wa yustahsau biha fala taqudu ma mu ne su ngeen fa toogee kon innakum isan mislahum yéen ak ñoom a yem te inna allaha jaamiul munafiqina wal kafirina fi jahannama jamia yàlla nee na yéefar ak naafiq ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñuy terminé mooy sawar te waaj a yàlla moom takk croix am yéefar la mais yow mi ko nangoo accordé mu takku croix bi nga toog nga ne da ngeen di waxtaan te croix boobu di wet di yàqu alquran bu wér li muy tekk mooy yow naafiq nga te nee na inna allaha jaamiul munafiqin wal kafirin fi jahannama jamia ñoom ñëpp kon kon bu mel noonu la ci jurit war a yor am na ñu jéem lay ne ñuy bokk lañu ba bu ñu wax sax léegi suñu mbokki nangam yi lañu mais baatu mbokk boobu fan lañ ko bëgg a teg bëgg a wax ne léegi ñoo bokk baatu ngëm di bëgg a laye aayab innamal mu'minuna ikhwa ñu ne baatu ngëm rek la wax ku gëm ku nekk mbokk la te ñoom gëm nañu yàlla mais est ce que ñoom alxuraan bi bu tënkee noonu ngëm noonu rek la bàyyi ngëm léeralul lan mooy ngëm ak it ñoom bokkoo googu alxuraan léeralul lan nañu war a bara bokkoo ak ñoom alxuraan def ñoo wax bu leer ne fa in taabo wa aqaamu salaat wa aatawu zakaat fa ixwaanukum fi diin seen mbokk lañ ci diin sarti yi il faut mu am fa in taaboo dañuy déjjikoo ca lañ nekkoon tuub wa aqaamu salaata ñu nangoo taxawal julli di ngeen koy defee wa atawu zakaat ñu joxe asaka di ngeen koy defee kon fa ixwaanukum seen i bokk lañ léegi fi diini ci diine waaw mais loolu amul duñ bokkum diine ndax baatu ngëm gi ñuy wax lan mooy ngëm innama almuminuuna alladina ida sukira allahu wajilat qulubuhum benn wa isa tuliyat alayhim ayatuhu saadathum imana ñaar est ce que am nañ boobu wa ala rabbihim yatawakkalun alladina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul muminuna haqqan waaw aaya boobu ku mu dugalu rek boo ko bëggee dugal ci inamal muminuna ixwa loolu ak naafiq la yow yaa ci dugg kon booba waaw innamal muminuna alladina isa sukira allah daf ne ngëm gi yàlla accordé mooy koo xam ne soo ko tuddalee yàlla xolam tiit soo ko jàngalee aaya yàlla loolu daf koy dolli ngëm koo xam ne soo ko jàngalee aaya yàlla mu gëmu ca dara kooku nga bëgg ko dugal ci cadre ngëm li muy tekki mooy yow yaa nekk ci nafiq da nga koy tekki ca lam nekk mu ne ku gëm yàlla dëgg mooy koo xam ne day nangoo taxawal julli di joxe asaka nee na kooku mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla dëgg ulaika humul muminuuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karim kon yeneen yi bëgg a muur nit ñi yëpp di wax ne ay ñu gëm yàlla lañoo ay diine la ñu nekk ak dañoo gëm yonent boo xam ne yàllaa ko yónni woon ak loolu lépp erreur la boo xam ne dañ koy naxi nit ñi seen yonent boobu ñun danañ ko gëm muy isa alquran moo nu ko gëmloo gëmloo nu keneen ndax moo ne amana rasulu bima unsila ilayhi min rabbihi walmuminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli yonent bi gëm na li ñu wàcce ci moom gëm na yi ko jiitu woon yépp it ñi gëm yàlla yi tam gëm nañ ko du ñu teqale kenn ci yonent yi ne ay yonent lañ yàlla moo leen yónni téere yi mu wàcce woon itam euh, mooy yi nga xam ne yàlla ci yàlla la wàcce waaye nag est téere yooyu yàlla wàcce woon ñoom mooy yi ñu yor alquran waxuñu loolu alquran nee na fa waylul lillazina yaktubuuna alkitaabi bi aydihim summa yaquluuna haada min indillah li yashtaroo bihi thamanan qalila fa waylul lahum mimma kasabat aydihim wa waylul lahum mimma yaksibun koo xam ne yàlla ci boppam moo ne la téere bi mu yor moo mooy dugg ci néegam bind lu ko neex soppi lu ko neex génn ne haasa min indillah lan moo ko waral li yastaroo bihi samanan xalila ngir mu mën caa yilif ay nit man leen caa yilif man caa jariñoo ci ñoom man leen caa jariñoo ci àdduna leer leen ne am na ay textes yu baree bare bari yu ñu denc ci bible bi yoo xam ne suñu ko génne woon li muy tekki mooy dañ fay bàyyi seen diine ñëw dugg ci biir diine l'islam mbokk mi wax na ko sànq ne def nañu réunion seet ndax dañuy reconnaître Muhammad comme yonent wala duñ ko reconnaître ñu ne suñ ko reconnaître li muy tekki mooy ñoom kon yoratuñu dara dañuy war a ñëw kon nañu continuer rek dëgër bopp wane def yonent waaw te ñun li ñu gëm ci biir alxuraan muy seen yonent carrément moom bi mu fi daan jógee moo leen wax ne seen diine jeex na diine ji jeex na parce que yonent bu fi mës ñëw bu nekk booy bëgg a dem da beneen yonent bi nga xam ne moo lay topp Seydina Muhammad mi nga xam ne rek moom dañ koo yónni ci lan naa si kaafatan mooy ki nga xam ne moom la euh, risalaam di continuer ba léegi wa id qaala isa bnu maryam ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min atawrat gis ni ni mu dëggale tawraat ba jiitu woon wane na tawraat bi ma fi fekkoon Moussa lépp dëggal naa ko waaye nag wa mubashiran bi rasulin yati min baadi ismuhu ahmad maa ngi leen di communiquer ne man sama mission jeex na am na beneen yonent buy ñëw boo xam ne ahmad lay tudd loolu tur woowu soo demee ci seen injil yi yenn yi da nga ko ca fekk ñu koy jox weneen sens ak di ko jox weneen turu waaye la muy tekki mooy tur ahmad moomu lay tekki dëgg koo xam ne nag pas-pas bu mel noonu la ñu lislaam jox ci moom euh, suñu nee mën nañoo déggoo ak moom ci reconnaître nangu ne diine la yor ñu nangu yor diine suñu invité ci église ba dañuy dem ñu suñu xewleen màggal wala gàmm wala leneen dañ koy woo bi mu ñëw toog loolu suñu ko bëggee def li muy tekki mooy dañuy bàyyi l'islam complètement ku ko bëgg a li muy tekki mooy da ngay bàyyi l'islam complètement ndax ñaar yooyu moom mënta am ndax loolu proposé woon dañ ko yonent bi avant mu fiy jóge dialogue boobu booba lañ ko commencé proposé bi leen yonent bi jaaxalee ñu xam ne diine ji estrel na ko ba pare kenn mënatu ko fee jël ndax yàlla def ne yuriduuna an yutfiu nuur allahi bi afwahihim wa yaba allahu illa an yutimma nuurahu walaw kariha alkafirun dañoo bëggoon a ëf l'islam benn yoon mu fay bi l'islam dëgëree na continuer continuer ba sax nag ñu ne léegi nañu seet nu ñu déggoo ak moom ñëw ne ko yow yonent bi daal dangay am yoo d'accord ci suñu diine ji suñu église yi nga mën ci ñëw yow it l'islam bi am yuñ ci d'accord soo xewlee ñu mën a ñëw yàlla daal ko jox communiqué bi ne ko xul yaa ayyuhal kaafiruun yéen ñi nga xam ne da ngeen a weddi yàlla laa a a'budu ma ta'budun du yàgg ba ma jaamu li ngeen di jaamu yéen it wala antum aabiduuna ma a'budu yéen it du yàgg yàgg yàgg ba ngeen jaamu li may jaamu wala ana aabidun ma abadtum du ma jaamu mukk li ngeen di jaamu wala antum aabiduna ma abudu yéen it du ngeen jaamu mukk li may jaamu li am daal mooy lakum diinukum waliya diin waaw comme mënu leen a dugg ci biir l'islam téye leen li ngeen di tudde diine yéen téye ko ma téye may itam li may tudde diine te loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom la confirmé ci lettre yi nga xam ne doon na ko yónnee buur yooyu nga xam ne ñoo nekkoon ci jamonoom te nekkoon ci diine chrétien ñi ci gënoon a bari ñi ci des nekkoon ci yeneen i diine ñu ci ay lenn lettre rek surtout Najaasi moomu nga xam ne ñu bari moom la ñu laajee wane na dialogue bi war naa mën a nekk parce que l'islam ba mu sonnee ci najaas yi la yeble woon te moom moo fatoon jullit ñaak yooyu mais najaas yi moom ban façon chrétien la yalla chrétiens daf cee wax ne am na ci ñoo xam ne moom ñu tane lañ wa inna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa ida sami'u ma unsila ila rasul tara ayunuhum tafidu min addam'i mimma xarafu min alxaq yaquluna rabbana amanna faktubna maa shahidin wa ma lana la numinu billahi wa ma jaana min alxaq wa natmahu an yadxulu rabbana ma alqawmi salihin mu ne am na ci ñoom ñoo xam ne ay borom xam-xam tigi lañu wa inna minhum qissisiina wa ruhbaan nee na ñooñu duñu réy yooyu saa bu ñu déggee alquran nee na da ngay gis seen i bët di jooy tafiidu min tafiidu min addami mimma arafu min alxaq luñ cay teg rabbana amanna faktubna ma ashahidin najaasi niveau boobu la yoroon ba ñu ko jàngalee alquran ci kanamam ba ba ñu daataan noppi ki doon jàng bi mu siggee dafa fekk sikki bi lépp takk ay ronkoñ mu ne waat naa ci yàlla ne day alxuraan ji fa muy génne moo fa injiil bañ wàcce woon ci isaa fa mu doon génne ñoo bokk benn teew bu leen di sotti waaw dal di seere ne gëm na lettre bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko adressé woon moo nekk nii comme ci masaa di woo yonente bi daawu la woo ci ne sa diine nga am ci loo ci jàpp te ma déggoog yow danaa la aslim taslim kenn ku ci nekk loolal daan wax tuubal ngir nga mën a mucc boo tuubul kat doo mën a mucc te bakkaarum ñi nga yilif yépp itam nga tee leen a tuub ci sa kaw lay tegu najaasi moom def na ko haasa kitaabun min muhammad annabi ila najaasi al asham asimul abasa lettre bii mi ngi jóge ci muhammad mi nga xam ne ab yonent la jëm ci négis moomu najaasi moom nga xam ne mooy bóoru abasa lu mu ko wax salaamun ala man ittaba al huda na nga yëg ne mucc day du mën a nekk ci kenn koo xam ne jaaroo ci njub gi nga xam ne moom laa indi wa amana billahi wa rasulihi mucc itam mi ngi mën a nekk ci koo xam ne dafa gëm yàlla gëm yonent bi mu yebal wa ashhadu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lam yattaqi saahibatan wala walada wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kii mën a muccin mooy ci gëm ne yàlla kenn dong la amul benn buur buñ koy boole di ko jaam yàlla moomu wutul jabar wutul doom te itam nga gëm mu muhammad mooy ndawal yàlla moom la yónni daal ne ko wa addooka bi diayati l islam maa ngi lay woo ci nga dugg ci biir l'islam fa inni ana rasuluhu man mii maay yonent yàlla man kat fa aslim tuubal taslim kon nga mucc waaw daal di daanee la aaya bi nga xam ne moom la doon tëjee lettre yi mu leen doon yónni yëpp yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum mooy lan allaa naabuda illa allah wala nusrika bihi shay'an wala yattaqisa baaduna baadan arbaban min dunillah yéen ñi nga xam ne da ngeen doon wax ne am ngeen téere bàyyi leen foofu seen téere bi ñëw wuy si ma ci benn baat boo xam ne maa ngi ñoo ci yem du ca ngeen da ngeen may wuy si ma nekk bóor ngeen nekk baadoo la déedéet mooy lan allaa nusrika billahi shay'an wala yattaqisa baaduna baadan arbaban min dunillah kenn ci nun du jël morom ja di ko def buur waaye gis nga li yoon aaya bi terminé mooy lu mat a bàyyi xel la du caagee ni koo moom koo woo mu wuy si la waaye du caagee ni bu la wuy si wul nag yow yaa ko war a fekk mu ne ko fa in law bu ñu wonee gannaaw nag fa xooloo na ngeen wax ne ishadu bi anna muslimun su ngeen nangu wut a ñëw na ngeen nu seereel na nun ay jullit lañu te duñ leen fekk waaye gannaaw woo naa leen ñëwunu li muy tekki mooy damay wàcc di wàcc di wàcc ngir ma mën a déggoo ak ñoom te ñoom fa ñu taxaw ñoom ñu taxaw fa première principe ñu nangul la ne sab yonent yonent la rek loolu nanguwuñ la yonent la ngeen doog a seet yeneen yi ci des kooku nanguwuñ ko loolu nag jullit boo xam ne da mën a nangu l'islam bi li nga ci jot lépp muy alquran ak lépp jaare ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam am koo xam ne gëmul ne kooku moom ab yonent la nga war ngaa a dialogue ak moom kooku li muy tekki mooy di dialogue mais du ci biir alquran dialogue boobu am na lu mu ci digal nee na wala tujaadiloo ahlal kitaab illa billati hiya ahsan illa allatina zalamu minhum wa qulu amanna billati unsila ilayna wa unsila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun bu leen bu leen dialogue ak bu leen weranteeg waa ahlul kitaab lu mooy ci werante wu rafet lu mul nag ku ca tooñ ku ca tooñ ku ca tooñ mooy kan mooy koo xam ne wutal na yàlla morom parce que yàlla nee na inna shirka la sulmun azim kon ku ne inna allaha saalisu salaasa yàlla ñett la da ngaa tooñ dañuy daal suñ biir rëddul l'islam di leen ci woo dialogue bi dañ doon waxtaanu leeral leen l'islam man leen a woo amma su fekkente ne loola mënta ñëw nag yow sa carte d'identité l'islam moom na leer mooy ishadu bi anna muslimun ci ay réeral yu bari doon nañ ko ci def ci biir nit ñi dégg nañ ci même ab xadis boo xam ne dañ ko doon yokk ci biir waxtaan yooyu dégg nañ koo xam day wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu walaw kaana kaafiran dégg nañ loolu ku ko yokk ci ab xadis ngir bëgg a wan ne warees naa mën a déggoo ak ñoom waaw loolu kon amul benn tegtal boo xam ne buy mën a dellu ci lislaam la buy mën a dellu ci sunna la lu muy bëgg a topp bànneex bëgg a wut teraanga jooju nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa kon daal laaj bi ñu posé woon ci thème question bi mooy ndax dialogue boobu mën naa nekk dialogue bi day su fekkee day fekk fekki na nu ngi ci suñ biir diine di naxante ak ñoom di leen woo andi leen ci biir l'islam kooku mën naa nekk su fekkente nag day am ay principe yoo xam ne ñu dañ koy bàyyi duutuñu ko gëm parce que première bi rek mooy nga toog ak ko takk croix kooku moom soo accordé toog yëpp toog ak yow takk croix am na loo weddi ci alquran kooku moom amul toléré moom day nangoo dindi croix bi kay sànni fële ngeen bokk toog waaw ngeen leen mais gannaaw jàpp ne ne moom faw daf koy takk li muy tekki moom mooy kooku moom mën agu leen a tàmbali parce que dafa weddi alquran wa ma salabohu la wax waaw ñoom ñu la dañ ko salab ba croix bi moom la ñuy symboliser bi moom moom la ñuy takk ci suñu baat moom la ñuy def ci suñu église moom la ñuy def ci lépp dem nañ ba ndax ci jullit ñi sax ba euh, jël croix rouge exploité ci croix boobu ba même jullit ñi suñ tabaxee seen hôpital boo xam ne ñoo ko defal seen bopp sax croix lañ cay def far nga xam ne loolu dañ a jullit ñi da ngay gis ko def yëfi boppam yoo xam ne yoonu kenn nekku ci parce que bu dee hôpital yi nga xam ne ab état laïque boo xam ne ci ñoom la wéeru moo ko tabax def teb croix am sa yoon newu ci waaye sa yëfi bopp même sa boîte en pharmacie sax da nga ciy rëdd ab croix est ce que loolu dafay obligatoire man loolu nee naa woon ko laaj safoor yi parce que boîte en pharmacie bi ñuy gis ñu def ko ci biir oto yi damay gis il ñu def ci croix ci biir leen ci dañ leen ci leen ci dul marqué loolu mën naa ñàkk da ngay gis koo xam ne ci biir këram benn vitrine bu muy denc ay garabam jàpp ne ne il faut war na caa def benn croix waaw loolu lépp mu ne ay réer la yoo xam ne jullit ñi ñu koy def te seetlu wuñ ko te xamoo ne croix boobu day weddi alquran croix bi dafa weddi alquran jullit ñi ñu bàyyi xel ci loolu bu baax nañu bàyyi xel ci loolu bu baax parce que ñoom pour saxal pour saxal loolu tax na ba même lu ñuy defal jullit ñi jullit ñi ñu bàyyi xel loolu bu baax lu ñuy liggéeylu ci ñoom nañ cay bàyyi xel ñu ca mën a fexe ba dugalaale pourwaa boobu ca biir danañ ko ca defalaale pour wane na yow kat li ngay weddi mi ngi loolu ci sa biir kër waaw li ñuy weddi mi ngi loolu ci sa biir kër même bu ñu même aussi yi bii fi ne même lampe yi nañ ko escalé yu ci bari bari forme courant forme euh, croix lañ ko jox forme croix lañ ko jox ne jullit ñi kër gi ngeen tabax wane ne kërug l'islam la danañ fexe ba defal leen ci loo xam ne booy ci ne jàkk rek croix boobu ñett ñett yooyu lay wane yooyu yëpp kon ay nax la yoo xam ne ñi ngi koy nax jullit ñi mbokk mi wax na ko léegi téeméer bu bees bi nga xam ne moo mujjee génn croix bi mu ngi ne ca fàng croix bi mu ngi ne ca fàng ca biir ñu doog caa indi benn góor ga boo xam ne bu kaalaw la wane ne yëf yi ñoo yem léegi parce que li ñu jàngale yëpp rek mooy yëf yi mooy yem parce que alxuraan wax nañu loolu nee na waddoo law takfuruuna kama kafaroo fa takunuuna sawa léegi sawa an rek la ñuy wut waaw dañoo bëgg ngeen weddi ni ñu weddee su ko defee ngeen yem fi mu ne moom wutatuñu génne ñu ci biir l'islam mais li ñuy wut mooy noo yem nooyam ñun ñëpp diinay foo la ñuy wax rek diina joo xam ne ñoo ko kereel suñ bopp waaw waddoo law takk takfuruuna kama kafaru fa takunuuna sawa waaw yàlla ne nag fala tattaqisu minhum awliya bu kenn wut ci ñoom xarit bu ci kenn ci ñoom wut xarit position bii ñuy jël du position boo xam ne ñun ñoo ko créé ñu naan gars yi andil islam bu bees bi parce que dégg nañ ci bi pap bi bëgg a ñëw benn labbe bu doon gërëm ay nit yu ko indi ay ndimbal ne leen waaw yéen ngeen yor moom la xam waaye l'islam bu bees bi nga xam ne moom lañ bi bëgg a indi bi ñu waxal yoo xam ne kenn xamu ko ñun boobu lislaam xamuñ dal la joxe misaal ne gaal su nekkee ci géej su dee bëgg a lab koo dégg muy yuuxu rek mooy ku wóoluwul boppam ci feeñ mu ne ñu fi yu yuuxu yëpp naan pap bi bu mu fi ñëw pap bi nangam mu ne ñooñu dañoo wóoluwul seen bopp ci feeñ waaye yéen ñi wóolu seen bopp ci feeñ yéen yéen ngi ne tekk waaye kookee wóolu boppam ci feeñ te mënti feeñ li muy tekk mooy day lab ci biir waaw ko wóolu boppam ci feeñ te day lab kon kooku ko wóoluwul boppam di woote war na sax kooku kooku ab sécurité wax naa ne kon loolu moo doon position yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lettre bi nga xam ne moom la bindoon najaasi moomu loolu la ko ca wax nga xam ne moom la bindoon Kisra itam lépp rek pour nga xam ne position bi buñ ko jëlee buñ tuddee nañu ay intégriste lañ wala ñi dañoo radical ba nga xam ne mënuñoo déggoo keneen mais yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la doon woo ñooñu ci la leen doon woo ci boo xam ne l'islam mu kese la waaye woowu leen ci pour déggoo ak ñoom ca la ñu nekk Kisra mi nga xam ne moo doon buuru Paris lettre bi mu ko bind yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne min muhammadin rasulillah illa kisra asimi faris maa ngi bind lettre kisra mi nga xam ne mooy buuru faris lu mu tàmbalee salaamun ala man ittaba al huda mucc daal ci adduna bii bala ngaa mën a mucc da ngay topp njub gi nga xam ne moom laa indi ndax njub mooy qul inna hudallahi huwa al huda génn njub moo am te mooy ngi njub gi yàlla wàcc wa amana billahi wa rasulihi gëm yàlla gëmub yonent wa shahida an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la seede na kenn du buur ku dul yàlla wa anna muhammadan abduhu wa rasulu muhammad ndawama te moo ko yónni daal ne ko nag wa ad'uka bi diayatillah maa ngi lay woo ci wooteb yàlla fa inni ana rasulullah yëgal ne man maay ndawul yàlla ila nnaasi kaafa ci nit ñëpp nag la ma yónni li yunsira man kaana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin ngir ma waar képp kuy dund waaye waar gi may waar képp koo xam ne nangu woo ko wuyu Euh, waxi yàlla jëm ne dana la lakk kooku day di dal ci sa kaw dal ne ko fa aslim taslim tuubal pour nga mën a mucc fa in abayta fa inna ismal majuusi alay soo tuubul kat mbooleem bakkaar ku nekk ci sa gannaaw ci ay majoos di jàmm leneen lu dul yàlla bakkaar boobu da nga ca yemu ndax mooy li yàlla naan ku réeral aw nit boo gisee réeral ay nit mata watandi ko bu baax ku mënta jubal ay nit nga bañ leen a réeral yowmal xiyaam yàlla nee na ku réeral ay nit da nga gàddu sa bakkaar ba mu doy sëkk ñu daggal ca bakkaaru ñooña gàll la lim ne wala tasir waasiratun wisra uxraa boobu bokku ci ndax fii daf ne li yaxmiloo awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari allatina yudilloonahum bi xayri ilmin ala saa ma yasiruun ku réeral aw nit ca lan ko réeral a ñàkk xam-xamam moo tax nee na yowmal qiyaam da nga gàddu say bakkaar ba ma tëg awsaarahum kaamilatan su ko defee nag ñu dagg ca bakkaar yi ña nga xam ne ñoom nga réeraloon sëf la nga yor yan boo xam ne doo xam fu muy tere kon ab saakub ceeb bu ñu lay jox wala ay bor yoo yoroon pour ñu baal la ko bu la taxee ñu lay def soldaar ngay lay ci ay lay yoo xam ne dañ nga koy réeral ay nit loola boobaa boo dajee ak sa borom loola du ko jar ci yow dana nekk rëccu yow bu rëy rëy rëy ñooñu la borom bi tabaraka wa taala di tëkku ne la inna alladina yaktumuuna ma ansalna min albayinati walhuda min baadi ma bayannahu linnaasi fi lkitab ulaika yal'anahum allahu wa yal'anahum allaainun nee na ñi nga xam ne dañuy nëbb li nga xam ne moo wàcc ci téere bi gannaaw mu leeree ci nit ñi nee na malaayka yëg ñëpp dañ leen di móolu te nee na ulaika alladina starawu dalalata bil huda wal asaba bil maxfira nee na ñooñu mooy ñi fab ak njub dem jënde ko ak réer fab njëggalum yàlla jënde ko mbugalum yàlla parce que yow jàngoon l'islam ba xam ko jàng ay hadis ba xam ko teg ca sa tànk di ko nëbbu ngir bëgg mën a réeral ay nit ngir bëgg a mën a def mission bu buñ la defloo pour nga mën a am neexal bañ la dig yàlla nee na ñooñu fa maa asbarahum ala ndax xam ngeen ku leen gën a ñene sawara ñooñu dëgg ba noppi teg ca sa tànk nangu koo wax ngir ay intérêt yoo xam ne moom lay dabu li yastaro bihi samanan qalilan njëgu àdduna gu néew yàlla nee na ñooñu amul koo xam ne moo leen gën a ñeme sawara amul koo xam ne itam moo leen gën a ñeme léewtoo ak yàlla kon yonent bi sallallahu alayhi lool moo doon taxawaayam xaytar bi nga xam ne moo nekkoon ruum lettre bu mel noonu la ko bind moom it ne min muhammadin abdillahi wa rasulihi ila iraqla asimi ruum salaamun ala man ittaba al huda Euh, leetar bi mi ngi jóge ci Muhammad mi nga xam ne mooy ndawalul yàlla jëm ci Héraqle mi nga xam ne mooy kilifa ak Room na nga yëg ne mucc day mi ngi am ci koo xam ne dafa topp njubug yàlla bi aslim taslim aslim yutika allahu ajraka maratayn soo tubee da nga mucc soo tubee yàlla dana la jox sag fay ñaari yoon ndax dana la fay sa yoolu bopp dana la fay sa tuyaabay ñi tax nga dugg ci biir l'islam ndax kilifa bu duggee ci biir l'islam rek ñu mbooloo mu baree baree bari lay duggaale moo tax mu ne ko da am ñaari yool wa in tawallayta nag fa inna alayka ismal arifiin su fekkente ne nanguwoo tuub nag mboolem bakkaaru ñu nekk sa gannaaw ñëpp danañ ko gàddu waaye yow itam da nga ci am cër boo xam ne yaa koy gàddu dal koy indil aaya boobu qul ya ahlal kitaabi taalaw ila kalima sawaa'in baynana wa baynakum kon ñu gis ne dialogue boobu suñ ko dee wax noonu nañ joggi ci aaya boobu aaya boobu yonente bi kumba saa bind leetar aaya bi la koy tëje mooy taalaw kaay leen ila kalimatin ci baat boo xam ne sawa in baynana wa baynakum noo ci yem parce que ñoom boo gisee wax ñoo ci yem ñoom seen diina amul yem seen diina moom dafa am ay kilifa ay waa yaraasi la am boo xam ne bi caa ngay dugg rek daal di nekk membre boo xam ne yaa ngi a tolloo l'islam fi ne benn waay mën a tuub léegi rek jiite ñu tàkkusaan benn waay mën a tuub léegi rek ñun daal ñu jiite tàkkusaan ñun ñu si nekkoon ba léegi mais loolu ñoom amul foofu moo tax mu ne sawa in baynana wa baynakum noo ci yem moom boo xasee dugg ba noppi rek yaa ngi ñëpp a ci yem léegi waaw li ngay rawaate nit ñi koy mooy wàllu ragal yàlla mën ngaa dugg sax daal di raw ñu bari allah naabuda illa allah kon principe bi ñuy njëkk a dialogue ak ñoom mooy première tombe bi mooy bu jaamu lu dul yàlla kon ñett ñett beeg doom jeeg yaay jeeg ruuxul xudus boobu ñuy wax wala yattaqisa baaduna baadan arbaaban min dunillah du ñu jël kenn ci ñun itam def ko kilifa goo xam ne lu mu wax rek ñu ne noonu la suñu defee bakkaar jàpp ne mën nañoo jéggal suñuy bakkaar bu ñu soxlaa ci yàlla jàpp ne moom moo koy war a mën a jàllale parce que ñoom seen diine fi mu ne noonu lañ koy doxale kenn ku ci nekk gis nga pape bi bi mu fi ñëwee kenn ku ne yaa ngi xënte woo mu raay la parce que jàpp nañ ne yaram wi rek yaramu am communication ak yàlla ba su la laalee rek li muy tekki mooy yàlla ci boppam moo la mas loolu tax ñuy xër ci kenn ku nekk raay la wala bu mënta bu la mënta raay sa yaram it mu raay la bokk ci yow bokk parce que ak xursiya lañ ko jox jëmm kon ci biir l'islam moom amit yàlla nag ne su fekkente ne wax ngeen lii nangu wuñoo ñëw yéen na ngeen taxaw fi ngeen taxaw nekk ay julit piir nekk ay julit yoo xam ne seen lislaam du ngeen ko jënde ak dara kon lii na ko julit ñi xam xam ne yàqu gi bari na xam ne xeex bii dafa jël beneen phase mais ca jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la tàmbali woon te du terminé benn yoon itam nag ndax al alquranul karim moo ñu ko communiqué noonu te ñoom fa muy terminé fañ bëgg mu teer fa mooy foo xam ne euh, dañuy génn ci diine complètement léegi danañ laye ne itam comme da ngeen a bokk réew da ngeen a nekk ay bokk da ngeen war a nekk benn da ngeen war a teg fële pas-pasu ngëm ji te ànd rek ci wàllu bekku géeg yooyu loolu itam alquran daf ñu cee wax lu leer nee nañu laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmil axir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulahu walaw kaanu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ixwaanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihim al imaana wa ayyadahum bi ruuxin min wa yudxiluhum jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha abadan radiyallahu wa radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika xisbullah ulaika xisbullah yàlla nee na ñii mooy partem te nag ala inna xisba allah humul muflihun la nga def mu ne xisbu seytaan ala inna xisba seytaan humul xaasirun léegi kon pour nga bokk ci parti bi yàlla yàlla nee na ngëm yàlla gi daf lay jaral bàyyi say bopp daf lay jaral bàyyi say bopp ngëm li feeg jëlalu la bàyyi say bopp ngëm gi dëggoogul ci yow yàlla nee na ngëm bu la jaral bàyyi say bopp yoo xam ne gëmuñu jàng leen ko ci ibrahim laqad kaana lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu ñooñu luñ wax isqaalu li qawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu lii la yàlla ne leçon la boo xam ne jàng leen ko ci Ibrahim waaye noo bokk réew ak noo bokk nangam ak yooyu yépp yàlla nee na ku ngëm yàlla nekk ci sa xol da ngay mën a bàyyi kooku nga xam ne bokku leen ngëm yàlla doonte lu ngeen bokk bokk bokk ci wàllu deret Ibrahima daf ne baayam ak bokkam ya ñun dey dañ liggéey di jàmm te itam wet dinañ doon def leen di ay yéefar itam te nag ak noonoo dox na suñ diggante parce que il faut noonoo am ci al adaa wal baxdaa moom li fekk amul sa diggante ko weddi yàlla bay boo nga am loolu sikki sàkk ci sa ngëm yàlla kooku moom mënta nekk moom parce que kon bu dul loolu tolérance boobu ngay wax tolérance boobu ngay wax xoolal Ibrahima li mu wax wa badaa baynanaa wa baynakum al adaawatu wal baxdaau abadan ak noonoo ak na suñ diggante xanaa kon yow boo doon dégg da nga naan yàlla ne inna ibrahima la awwaahun xalim xalim déggal inna ibrahima la awwaahun xalim yàlla moo ko takkal garaatu lewet ne ibrahima ku ñeewanti la ku bëri yërmande la ci xolam ku lewet la itam te teewul mu ne lii la wax bàyyam ak bokkam waaw kon tolérance boobu lan lay tekki tolérance bi kon li muy tekki mooy nifaaq mooy génn ci biir l'islam parce que nañu bàyyi xel ne baat yu njëkk yi ñu doon wax jamono yonent bi yëpp day su ba léegi mais dañ ko wutal yeneen i tur comme ni ma leen ko waxoon muslim dëgg léegi moom la ñu tuddee intégriste léegi léegi itam baatu nifaq almunaat bi kon kenn du ko wax mais mooy le tolérant yooyu ñu wax ne dañoo tolérant dañoo moderne muslim wala boo xam ne bu modéré la yooyu mooy munaafiqoon yi nekkoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saa buñ la adressé baat boobu nga nangu ko rek xamal ne yaa ay Ubay ibn Salul ak gaa yooyu yéen a tolloo woon affaire waaw parce que ñooñu dañoo bëggoon a dugg ci biir l'islam ba noppi di jëflanteeg yahuud ya nekk di xaritoo ak ñoom kon position l'islam dafay war a leer innani minal muslimin jooju li feeg fëggoo sa dënn man ko wax séparé wu la julit piir laa ba mbooloo moo toog ku julit xam ne sequ leen dara li muy tekki mooy sa lislaam leer moo tax Yaaqoob ba muy dénk doomam ñu leen falaa tamuutunna illa wa antum muslimun ngallaawaay na ngeen fexe ba bu ngeen di faatu ku leen seen nag julit a ngeen waaye boo ko séenee doo xam lu mu boo ko mën nga koo séen fu te baar ba yaa ngi ko fay séen te julit ba yaa ngi ko fay séen fu nekk yaa ngi ko fay séen xanaa daal jàkka ja nga koy fekk doo ko mën waa ji julit mais beneen bu ngeen a daje doo xam ne jullit la kooka li muy tekki mooy su faatoo ci loolu faatu islam jullit dafa war fu a toll fu mu taxaw atelier baas marché baas foo ko mën a fekk ne waa ji jullit la foo ko fekk rek ne waa ji jullit la waxam ak jëfam ak lépp tekki loolu kooku mooy jullit mais jullit goo xam ne xëy na boo nekk ci biir jullit ni nga boo nekkee ci biir leneen nekk ci leneen ñooñu la naan laa ilaha haula wala ilaha haula bokkuñu fee bokkuñu fee waaw loolu dafa am waaw parce que ñaari yoon yi dafa nekkul ñaari yoon yu parallèle yoo xam ne da nga naan da ngay teg fii tànk teg fii tànk déedéet mu taraxu turux la ñaari yoon yi dafa teqalikoo bii daa départ jëm penku bii départ jëm sow su fekkoon dañoo bokk lang nii mën ngaa teg fii tànk teg fii tànk di déré la di dem donte dox ba dana ñaaw te yeet itam xëy na da nga ko mën waaye bii moom dafa mënta nekk moom tànk boo teggi boo teg ci yoon wële li muy tekki mooy yaa a sori lislaam teg ci mooy yaa ngi da ngay nekkub jullit mais da ngay nangu lépp da ngay nangu pas-pas yépp loolu l'islam du ko nangu moom l'islam dafay teqali ko bu fekkonte ne l'islam loolu la nangu na dérële boobu kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam am problème biir Makka kon ay aboo jaali nag ñoo ñëpp danañ nangoo dugg ci biir diine mais lu leen ci yéemoon rek mooy lim ne woon li ngeen nekk lépp da ngeen koy bàyyi te ñëw ci li ma nekk loolu lañ mënul woon a dégg comme lañ doon yéem ne ajaxal al alihata ilahan inna hasa la sey moom nee na benn yàlla rek a am léegi loolu mbir la mu doy waar mënu ta dugg ci suñu waaw kon itam nun nit ñii ñu ko bëgg a doxalee l'islam boo xam da nga nekk am sa xaritu chrétien am sa lépp loo xam ne looy jëflanteeg jullit ñi moom ngay jëflanteeg ñoom looy jëflanteeg sa mbokkum jullit wala sax moom nga cay jiital loola moom bu boobaa l'islam du ko mën a nangu Sëriñ Tuubaa waxoon na ci wax joo xam ne ne moom mooy position daf ne wa ahbibil mu'mina lil imaani wal tuqidil kaafira lil kufraani bu seet la ne soppal jullit ngir ngëm nga rek bu ca seetati len mu ne walaw ata ilayka bil jinaaya saaka wasaa bil maali fil kifaaya noonu donte jullit bi day def fu mu xëy di la tooñ waaye mi ngi ci ngëm yàlla ba tey nee na dee ko bëgg nee na bu fekkoonte ne yéefar bi day def bis bu set mu werti la ci sa compte dix mille francs itam waaye continué ci yéefaram nee na na nga ko bañ walaw ata ilayka bis jinaaya saaka wasaa bil maali fil kifaaya ah, bil maali fil kifaaya te gaa yi doon dem ya doon dem sàmbate commerce kenn joxu leen bil maali fil kifaaya waxuma sax <laughs> waaw te moom nee na bil maali til kifaaya alal ñu doy sax buñ la ko doon jox da nga leen bañ ngir a gi waaw yow nag ñu dig la loo rek la sax wóorul da nga ca jotam déet ndax la nga nga jaral bàyyi sa diine bàyyi sa lépp dem di toog koo xam ne dañ fay weddi aaya yàlla loolu jullit bu ko def na bàyyi xel bu baax ca biir foofa yàlla gis nga ni muy ni muy taxale aw layam rek ne dinaa fa ko fa doon jàng ab aaya xaw ma duma kan la ci ne fa teewoon ma nga doon jàng qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tantiwal mulka mimman tasha wa tu'izu man tasa wa tusilu man tasa bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir foofa la yem ba mu yegg foofu daa bu jàlloon ci laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmil axir ah laa yattaxidil muminuuna al kafirina awliyaa min dunil muminin loola bu ca yeggoon jotaay ba tas waaw mais foofa la ko foofa la ko yemale laa yattaxidil muminuuna al kafirina awliyaa min dunil muminin waaw waaye foofa la ko yemale inna allah ala kulli shay'in qadir ci foofa la ko yemale conférence bi kon mel na ne tont nañ laaj bi nga xam ne moom la ñu laajoon ne ndax dialogue boobu possible ne wala possible li muy tekki mooy kon possible nañ nekk ci suñ biir l'islam téye ko jàng ko te xam ko leneen luñ ñuy woo ca gannaaw bitti la nekk ñu man ko wattandi ko bu baax ñaan yàlla mu dundal ñu ci l'islam rey ñu ci l'islam dekkal ñu nekk ay jullit wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñoo ngi ndokkeel doomu ndey sunu xarit Ibrahima Khalil Lo wax jim fi wax leer na nañ ci mboolem loo xam ne lan dañ ko doon wax suñu diggante ak ñoom te itam indi na lay yu weex tàll te mooy alquran ak sunna muhammad alayhi salaatu wasalaam leeral na it ñi nga xam ne xëy na ay intérêt tax ñu jël ay aaya dagg la leen ca neex firé ko na leen neex pour seeni procès ñu financé ko loolu yëpp leeral na ko Ibrahima Xalil Lo yàlla na la yàlla may wér yaram yal na la yàlla dimbale ndaxte ndimbalal diine nga wax na fii sànq affaire intellectuelle ne danoo war a jàng bible bi pour mën a xam yi ci nekk nu ñuy war a mën a dialoguer ak ñoom mais jàpp naa jullit li mu war a njëkk a def mooy jàng alquran pour mën a xam ne jullit la ba noppi waaw pour nga man a xam kee la nekk fi moom ba xam nooy waxeek moom yow xamal li nekk fi yow ba pare jàngal l'islam ba xam ko ba pare dëgg la ñun xëy na jànguñu bible bi mais jàng nañ alquranul karim te alquran moom la yàlla tudde xam-xam ne bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun comme alquran comme xas nekk ci dënn loolu mënuñu dàq ne loolu xam-xam la léegi wax ne même ne wàccukaay aaya alquran yi daf koo bëgg a yemale ci jamono yom doon wàcc qul yaa ayyuhal kaafiruun man maa gën a xam ne wàccul woon ci musrikoon yi mais daf leen a dugal wàccul woon ci chrétiens yi mais daf leen a dugalaale parce que baatu nañ xool ba xam chrétiens ay kaafir la ñoom déet laqad kafara alladina qaalu inna allaha salisu salaasa laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu bnu maryam kooku baatu kufur bi est ce que dugul kon buñ ne qul yaa ayuha alkaafiroon est ce que waxuñoo moom ah laqad kafara weddina alladina ñi nga xam ne xaaloo dañ ne inna allaha salisu salaasa yàlla ñett la yàlla ku ko wax yàlla nee na yëfër nga dellu waxaat ne laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu bnu maryam masiihu ibnu maryam ku ko tuddee ilaa yàlla nee na yéefar nga kon buñu ne qul yaa ayyuhal kaafiruun ee eh, yéen yéefar yi yaa ngi ci biir <laughs> yaa ngi ci biir dëgg la ñi mu doon wax rek ay xasaaleeg ay ibnu taymiya ak ñëpp borom mi xam-xam lañu waaye nag ci kaw ñu baña wax ci seeni wax loo xam ne lay juyoo ak alquranul karim amma wax ne ma des naa référé woo ci téere yooyu ay ay wax yoo xam ne day confirmer alquranul karim weddi wuñu ne seeni téere dëgg nga ca parce que yàlla néew néewul lépp lañ soppi am na ca lu ñu soppi am na ca luñ ca bàyyi te luñ ca bàyyi comme wax yàlla la woon dana dëppoo ak alquran mais loolu nag du may jullit nag mu di ko weesu alquran di ko jëli foofu ca biir dafa dul sa ñetti loolu ndax inna ansalna ilayka alkitaba bilxaqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhayminan alayhi wa muhayminan alayhi mooy daf koy dominer daf ko man suuxal dara doxatu ci dara wala la ci yonent bi néewul Omar ma doon jàng téereb tawraat néewu ko tawraat boobu li ngay li nga dëgg mais daf ko fii rek moom ne ko comme alquran xas na ñëw ba tàmbalaale ko ci biiram amutoo droit di ko jëli foofa di ko fa jàng kon loolu lañ bëgg a saxal julit bi alquran ci lay dellu ak intellectuel ak lu mu mën a doon yàlla la muy laaj julit bi su faatoo mooy ndax alquran ji ma la adressé woon xam ko wala xamu ko waaye leneen loo fi mën a xam teru alquranul karim soo faatoo loolu tuddul ab xam-xam waaw parce que bi muy wax borom xam-xam yooyu def ne walakina aksara annaasi laa yaalamuun ne laa yaalamuun walakin aksara annaasi laa yaalamuun li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam ñu ne ko ah mu ne jàng nañ ay téere yi àdduna mu ne yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia wa hum anil axirati hum xaafiloon kon defe na jullit xam-xam bu mu damoo budul xam alquranul karim loola aw xas la ci moom waaw kon loolu mooy li nga xam ne doon nañ ko ci dolli xam ne daal position jullit moom ni ko alquran leerale amul xasaali amul keneen alquran su xasee jib amatul kenn koo xam ne moom la ñuy déglooti mooy ngëm yàlla mënta ànd ak day dëppoo ak i karaja kurwa boobu itam man maa wax te ma ci dellu gannaaw ne fu fu ko da jàkk ak ku ko takk li muy tekki mooy day weddi alquranul karim parce que wa maa xataluuhu wa maa salabuuhu la alquran wax te alquran moo nañu bu leen toog koo xam ne day continuer di def loolu di decc loo xam ne day yéjji alquran ida samiatum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzau biha ñu di ko déjjénti fala taqudu maahum hatta yaqudu fi hadisil xayri innakum itan misluhum yàlla ci boppam kon moom moo def indicri su boppam moo ne innakum itan misluhum yàlla nee na ku toog ak ku mel noonu yaag moom a yem yaag moom a yem yàlla moo ko wax man li mooy sama position te moom laay ñaan yàlla faatu ci asalaamaaleykum